بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالي فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنا وبنو تامبلي كتري الله سبحانه وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di ci jiital wayjur yu tedd yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci gox bi di leen ziyaara di leen balwaak di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla bàyyi leen fi ñuy gunge ba bañ doyal ndax kat jamono yi toll ndaw yi dañoo wéet ay mag yu leen gunge ci yoon wi kon saa yu ñëwee fii fekk fi ay mag yu taxaw ci kanam ndaw yi di leen jàppale di njab du ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala yàlla jàppale leen comme ni ñuy jàppale ndaw yi beneen bi mooy tomb bi nga xam ne moom lañ bëgg fàttalante ak yéen fàttali lay doon parce que conférence borom xam-xam moo koy def xam naa fàttali ku nekk mën nga ko defal say mbokki jullit fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin fa zakkir in nafaat zikra fa zakkir bil qurani man yaxaafu waid buur bi subhanahu wa taala nee na muhammad na nga fàttali fépp fu la wóor ne boo ko taxawee nga fàttali mu jëriñ taxawal nga fàttali ko jullit fàttali bu fekkente ne dana jëriñ ñi ragal yàlla na nga leen fàttali ci alquran tomb bi te mooy lan moo tax doomu aadama ñëw kaw suuf tomb bu yitteel la tey lu tax tomb bu yitteel la mooy li ëpp ci ñun su fekkee dañuy wax dëgg rek fàtte nañ li taxoon yàlla bind leen kuy xool tey melokaanu doomu aadama yi rawatina ñii ñuy tuddee ay jullit ngay xool seen dund nga bëgg leen laaj biir wax leen dëgg dong te jayoo leen xam nañ ne fàtte nañ li taxoon yàlla bindu li ëpp ci ñu seen mbir lañ bopp seen mbir bopp lañ nekk waaye la taxoon yàlla bind leen moom pare nañ ci bu yàgg jur bi subhanahu wa taala ni mu bëggee doomu aadama amul lu bëggee noonu doomu aadama yàlla doon na doy rek mu bind doomu aadama ne ko jaamoo su ko jaamoo alhamdulilah mu fay ko ëllëg dugal ko aljanna su ko bañee jaamoo ëllëg mu fudd ndigam te du am ku intervenir waaye yàlla du buur boobu yàlla lan la def dafa sëmbartal ay xéewalam ci doomu aadama xéewal yi dul jeex yi mu yëg ak yi mu yëgul yi feeñ ak yi feeñul yëpp mu may doomu aadama ay xéewal moo tax mu ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen doon lim xéewal yi ma leen defal yéen doomu aadama yi wallahi du jeex waaye tey xoolal mbindeef yi fi ñu toll jàpp nañ ne xéewal mooy am amu àdduna ñaata tey ci ñun la ngay xëy suba dañee kenn sawa mu ne la non sawa pas sénégalaisement pourtant sawa yaa ngi xëy dara jotul te cër yëpp di nangu nga yëkkati loxo mu jóg tànk jóg gémmiñ di wax dara jotu la ñu ne la sawaa nga ni sénégalaisement loolu mooy lan mooy awma dara ku torox laa ku bon laa sama dara baaxul tey nga gis nag bu fekkee ne ab jullit la lu mu ñàkk ñàkk ñàkk soo dee ne ko waaw na nga def def xaalu danaan bi xayrin alhamdulillah yenente ñaari ñaan daf ko jàngale su neexee mu ne alhamdulillahi alladi alhamdulillahi alladi ah bi ni'matihi tatimmu salihat bu naqaree mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal wala ñaar yëpp ci da koy delloo ci buur ñun tey bu ñu leen ni bu ñu nee sawa ñu ne non sawa pas ou sénégalaisement kon mooy lan mooy baaxut doomu aadama xoolal mbindeef mbi yàlla xéewal yi mu ko defal yenn yi yëg na ko yenn yi yëgu ko bu taa xéewal la waaye yàlla yëmu ci loolu waaye wa yassara lahu subul al hidaya fa awdaa fi maarifatihi al maarifatu billah wa id axada rabbuka min bani adam min zurri min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala yàlla yemul rek ci may doomu aadama xéewal waaye da koo yombalal yoonu njub ku jóg rek jub wallahi njub dafa yomb ba moo gën a yomb am alal li tax nit ñi jubuñ dañoo bëgg te jub yoon bi yàlla daf ko yombal ba ku jóg bugg cee jaar dala ciy tëb daf ko yombal yombal gi mu ko yombal mu yombal mooy lan yàlla dafa moo ñaale ak doomu aadama xam yàlla da ngay judd rek xam yàlla nekk liir bu ndaw nga ni xale bi ana yàlla mu ne la mu ngi kaw asamaan xale bi fan lañ ko jàngalee yàlla ban université waaye yàlla ni mu bindee doomu aadama doomu aadama dafa soxla yàlla xale yu ndaw yi nga xam ne amaguñ juróom-ñaari at xam nañ yàlla jàmba ba ko yonent bi ne ayna allah mu ne ko fi sama mu ne ko goreel nañ la kon doomu aadama mooy ki nga xam ne dundam yàlla mënu cee génn loolu doyul yàlla leen a fàttaliku leen démb ba ma leen bindee ci alamul arwa man ak yéen ñun ñëpp ñu nekk ay ruux boobu nekk bu ñu woon ay mbindee yàlla dugalu bu ñu ci ndigal bàyyi aadam yàlla mu ne kan mooy seen borom ñun ñëpp ñu sujjóot ne yàlla yaay suñu borom waaye ba ñu yàlla dugalee ci ndigal bàyyi aadama wàcce ñu kaw suuf ñu ñëw ku nekk nga ne la ma waxoon waxeet nekkuma ci ñu ñëpp dañoo seede woon démb ci kanamu yàlla wa id axada rabbuka min bani aadama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ku yàlla wax alastu bi rabbikum ñun ñëpp ñu ne balaa kuy seen borom ñu ne ko yow boobu nangu woon nañ te parce que boobu fa ñu nekkoon melul nii boobu mu nga woon ca alamul arwa ñun ñëpp a maasi ko kañ la ñu magante ba ñuy ñëw adduna yàlla yemul rek ci bind doomu aadama may ko xéewal yombalal ko yoonu njub boole ko ak mooñaale jim ko mooñaaleel xam yàlla waaye yàlla doomu aadama ba mu fàttee ne dafa fàtte yàlla yàlla tànnaat ci mbindeef yi ay yeneen yu fàttali doomu aadama boobu ba tey lan mooy mission lii yëpp mënoon na ko cee bañ a fekk waaye mbaax rek ndeysaan yonent bi dafa gis benn xale bu jigéen benn jigéen bu yor doom liir bokk di ko saxali ween yonent bi laaj ñu ne waaw ndaw si ku ko ne bu ne sànnil sa doom ji ci biir safara si ndax dina ko sànni ñu ne laa ilaa sànni mu ne yàlla moo gën a yërëm ndaw si ak doomam bi yàlla gën a bëgg doom ji ak ndaw si kon lu tax yàlla dara lakk doomu aadama ëllëg mooy doomu aadama moo dëgër bopp waaye yàlla moo ko gën a yërëm ndeyam ak baayam yàlla yombal yoon wi yónni ay yonent pour ñu bàyyi loo nit ñi xel jottali leen li yàlla bëgg pour nañu jaamu yàlla rek bu ñu utal yàlla ndend bu ñu utal yàlla moroom allahu akbar tomb bu gaaw a ngi nii tey te mooy jàpp yàlla di ko dendaleeg leen wala jàpp yàlla di ko boole kenn da ngay gis tey ay jullit yu bëgg a rekk jullit di takk ay xaaw mbaa ñuy takk fesaat mbaa takk béjjën mbaa nga am tuur mbaa ngay rendil ku dul yàlla te yàlla tere la ko ba pare nga di jullit la la al islam al istislaamu lillah da ngay jébbul yàlla sa bopp da ngay jox sa bopp yàlla doo defee dara saa yoo defee dara pareegul yàlla lépp nga koy jox yàlla subhanahu wa taala ne yonent yi nañu fàttali doomu aadama yi ana lan moo taxoon yàlla bind leen nañu jaamu yàlla dong buñ ko bokkaale mu ne ibudullaha maa lakum min ilahin gayru gis nga mboolem yonent yi yàlla yónni na ci kaw suuf si cent vingt quatre mille prophètes ñoom ñëpp buñ ñëwee bokk na ci seen wax ibudullaha maa lakum min ilahin gayru ku mu sa ñëw rek wax nga lii jaamu leen yàlla amul kenn ku ngeen war a jaamu ku dul yàlla yonent bu mu sa ñëw wax nga lii saa yu yeneen demee yàlla yónni waat beneen yeneen yàlla yemul ci lii de waaye mu wàcce waat ay téere téere yooyu lan moo ci nekk njub la ñu ëmb pour doomu aadama yi seen dund mën a jub téere yooyu lan lañ denc ak mbaax pour doomu aadama mën a baax téere yooyu lan moo ci nekk lépp loo xam ne day tax doomu aadama yàlla gërëm ko ci àdduna ëllëg yowmal xiyaam yàlla dugal ko aljanna yàlla tënk loolu ci téere jox ko yonent yi ne ko jottali leen ko nit ñi yonent yi ki ci njëkk kan la aadama kan moo ci mujjee ñëw mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii nag ngir dund doomu aadama mën a tegu ci système bu jub yàlla mu ne laqad arsalna rusuluna bilbayinati wa anzalna maahum alkitaba walmizana liyaquma annasa bilqist yàlla nee na maa tànn sama yónent ma yónni leen ci ay lay yu leer ma wàcce ci kaw yonent yooyu ay téere ma jox leen boos pour lan ngir doomu aadama yi mën a dund dund bu jub ci kaw suuf xoolal mbokk yi yàlla may na doomu aadama xéewal yàlla yombalal ko yoonu jub yàlla def ci mooñ gim ko bindaale yàlla def ci xam yàlla yàlla yónni ay yonent yonentee yàlla jox leen ay téere lii yëpp mënoon na ko cee bañ a fekk waaye yàlla daf bëgg doomu aadama baax doomu aadama jub loolu moo doon muqaddima bi pour ñu xam li yàlla mbaax gim ñu féete ak li yàlla namm ci ñun moom yàlla ba mu nammee bind doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf dafa am lu tax dafa am lu ci bëgg ci tomb bu gàtt pour ngeen gën a dégg tey jii fii ñu toog baax bi rajo bi seen si lu tax ñu def ko fi ndax mën nañ ci am tontu ah verre bii lekk suñu kanam ndox mi lu tax ñu indi ko fi mën nañ ci am tontu rajo bi lu tax ñu indi ko fi mën nañ ci am tontu ah yére yi ñu sol mën nañ ci am tontu ñun lu tax ñu toog fii tey mën nañ ci am tontu su fekkee yii yëpp mën nañ ci am tontu kon kenn ku nekk wéetal dugg sa biir néeg yow dong yaag yàlla nga ni yàlla man mii lan moo tax yàlla bind ma ndax di nga am tontu wala doo am tontu wallahi di nga am tontu su fekkee da ngaa nar a jub di nga am tontu soo naree alf doo am tontu yàlla ba mu nam ne bind aadama bind doomu aadama indi ko ci kaw suuf dafa tibb ci suuf si ñuy dox ci bisu àjjuma yàllaa ngi bind aadama bisu àjjuma ci bisu àjjuma boobu la ko dugal aljanna ci bisu àjjuma boobu la ko génne aljanna yow man xiyaam bi jot lu dul ci bisu àjjuma waaye ci ban heure ci tàkkusaan la yowmal xiyaam di nekk tàkkusaan googu la yàlla di giñ naan wala asr innal insaana la fi tàkkusaan googu mooy tàkkusaanu ngoonu yowmal xiyaam yàlla bind na adduna bi yàlla bindam bi mu doon bind adduna yàlla nurawul ak ñun innama amruhu ida arada shay'an an yakuna lahu an yaqul lahu kun fayakun yàlla bëgg na bind àdduna àdduna pare na mu bind àdduna bi nga xam ne ci la ñuy dund tey asamaan ak suuf ci ñaata fan fi sittati ayaam ci juróom benn fan waaye wa ma massana min luruub sonn ma de comme ni ko ñenn ñi di waxee ñu ne yàlla dafa tàmbalee samedi dafa tàmbalee lundi dimanche dimanche ba vendredi mu noppalu samedi ñu ne non non dafa tàmbalee mardi ba samedi mu noppalu dimanche moo tax juif yi du ñu liggéey samedi parce que dañ ne yàlla da doon noppalu samedi chrétien yi du ñu liggéey dimanche parce que dañ ne yàlla da doon noppalu abadan wa ma massana min lughub yàlla moo def loolu ngir mbir yàlla bind na ko ci juróom benni fan waaye fan yooyu nuroowul ak sunuy fan lu tax parce que ñun sunu fan dafa am fu mu dépendre ngi dépendre ci jant bi yàlla nag bisam dépendreul ci jant inna yawman inda rabbik ka alf sanatin mimma ta'udun yàlla benn bisam mooy sunu fukki junni at mooy benn bis ci yàlla moo tax fii ku fi am at yu bëri ndeysaan da ngay gis benn waay ñu koy tàggee ci rajo bi ñu ne am na téeméeri at ak juróom fukk ci yàlla ay seconde la am ci àdduna ay seconde kenn amul ay at ay fan fii ci àdduna fi at yàlla loolu tax yowmal xiyaam bu ñu demee buñ ñu fëggee ci biir bàmmeel yéenu ñu yeewu malaaka yi ne ñu waa yéen ñaata at ngeen am da ngay dégg ñenn ñaan in labisnaa illaa yawman man dégg wallaay benn bis rek laa fa am dee te ko waajo am na fi téeméeri at mu ne benn bis laa fa am ñenn ñi dañ naan lam yalbasu illaa asiyatan aw duhaaha kenn ki man de suba rek laa fa am rek dee kii ne man de ngoon rek dama judd rek dee te kooku am na fi juróom-ñaar fukki at lu tax mooy suñu fukki junni at suñu junni at ñun inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun suñu junni at mooy benn fan ci yàlla suñ demee yowmal xiyaam bay dugg aljanna miskin yi la ñuy njëkk a dugal juróom fukki at ñu doog a woo borom alal yi dañuy dugg genn wàllu bëccëg la ñuy dugal miskin yi genn wàllu bëccëg ci yàlla mooy suñu juróom fukki at kon xam ngeen ne dañuy nax suñu bopp rek dund gu gàtt gu gaaw a jeex gi da ngay dund léegi balaa ginnaaw suba nga faat nga bàyyi fi lépp ni la yàlla bindee woon nga dund dundum indaale woo dara noonu ngay delloo ci yàlla lu fi jar ay bakkaar lu fi jar fàtte yàlla loolu tax sahabat jiilu ji jiilul awwal asxaabu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente da leen tàggatoon ñu bàyyi xel àllaaxira xam ne fii du kër yonente leen tàggatoon ñu xam lan moo tax yàlla bind leen yonente yàlla yaxyaa fa nekk xale xale yi dajaloo ne ko yaxyaa kaa ñu koy mu ne leen maa lillahi bi xuliqtu yàlla binduma pour foofu maa lillahi bi xuliqtu loolu jot nañu wax ko waa Ndakaaru de maa lillahi bi xuliq naa de maa lillahi bi xuliq naa mbokk yi ko bi doy na li nekk ci réew mi doy na de ku nu bëgg lii la ñuy wax waaye ki sànq mooy ki topp ay bànneexi ba kanam yàlla subhanahu wa taala bind na adduna bi ci juróom-benni fan yoo xam ne nu réewul ak sunuy fan ndax sunuy fan ñun dafa am fu mu dépendre jant day tenk so ñu xam benn fan mu cinquante soog ñu ne ñaar ci yàlla bisam amul jant ñaareel bi yàlla bind na rabu àll yi rabu àll yi sax ñu njëkk doomu àll ma wax loolu malaaka yi ma ne leen damay bind benn mbindeef mbindeef moo xam ne maa ngi def yaramam ci ban ban boo xam ne dafa ñuul wow song waaye di xeeñ soo ko fëggee nga dégg muy kelañ lañ toll la yàlla wax malaaka yi su ma ko bindee ba tollale ko ba dugal ci sama ruu yéen ñëpp na ngeen rot ngeen su jootal mbindeef moom yàlla daal nay bind mbindeef mi ci bisu àjjuma boobu dugal ko aljanna moo malaaka yi nañ ko su jootal malaaka yëpp daal di su jóot am na fa benn mbindeef bu tudd iblis xam ngeen iblis lu muy firi mooy borom mujj gu bon iblis borom xam-xam yi nee nañ suuf si fu ma foo ne nii sabre julli na ko suuf si foo def ni sabre julli na ko asamaan yi asamaan bu nekk dafa am lu mu tudd ba mu ñëwee ba septième asamaan ci la tudd iblis mooy borom mujj gu bon fu mu jëmoo baaxul nit mën naa tàmbali fekk mu jëm du baax moo tax yonent bi bokk na ci ay ñaanam muy wax xayrul umuri xawaatimaha bokk na ci ay ñaanam allahuma yaa musabitul qulub sabbit qalbi ala taati bokk na ci ay ñaanam rabbana la tuzig qulubana bada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka yenn saa yi da ngay gis ku góorgóorlu waccaag rek nga gis ko mu nekk benn rappeur yenn saa yi nga gis ku góorgóorlu waccaag nga gis ko mu nekk benn disquette delluwaat ci xeesal yi delluwaat ci jipp yi delluwaat ci mees ba soo waxee mu ne ah diina bi daal daa tàng ban diina moo sedd diina xees xeesal diina mees diina zip diina likra diina musique diina sàngara diina sigar diina njaaloo diina damiye diina péemi boobu diina moo sedd hal haga diin est-ce que loolu diina la aha kay diina la yàlla wax na ko ci suratu aaraaf yàlla subhanahu wa taala mu ne Abdullah ibn Omar ci jamonoy tàngaay dafa bëgg mu mar mu ne may la ma ndox gaa yi daal koy ni ndox mu sedd ndeysaan mu naan rek jooy ñu ne ah subhanallah abdallah da ngay mar di ñaan ndox ñu lay may ndox santoo yàlla ngay jooy mu ne sama sama xel moo dem ci benn aaya ñu ne aaya bi lan la mu ne waxiila baynahum wa bayna ma yashtahuun buñ demee aljanna ñii dugg aljanna ñii dugg safara waa safara yàlla day jaar seen digganteeg seen i bànneex nekkul lu ñu bëgg am rek am ko nekkul lu ñu bëgg am am de yàlla day jaar seen digganteeg seen bànneex yi ñu laaj Abdallah looy jooy mu ne damaa xamagul ndax damay dugg aljanna wala damay dugg safara te waa safara bokk na ci li ñuy gën a bëgg bu ñu duggee safara mooy ndox ndax dañuy xool waa aljanna naan leen an afidu alayna min alma aw mimma razaqakumullah waaye may la ñu ci ndox mi waay wala ngeen may ñu ci xewal yi lan la waa aljanna tont inna allaha harramahuma ala alkafirin yàlla araamal na xéewali aljanna ci yéeféer yi ñan ñooy yéeféer yi mooy aaya bi ma leen di wax ndax soo diine la wala diine soo diine la alladina taxadu diinahum lan lahwan wa laiba kon diine la soo ndeke diine la am na ñoo xam ne tey seen diine mooy foofu xataa suñu diine ji sax da ngay gis sabale yeeg jaagar jaagar yeeg takkar kerek kerek rëllal dël di yuuxu la ilaha illa allah xataa suñu diine bi foo bi da cee dugg yenn saa yi da ngay romb benn place ñu ne lii diine la ay am day daal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi maa lil laibi xuliqnaa afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun fa taala allahu maliku lxaq la ilaha illa huwa rabu larshi lkarim maa xalaqna alsamawati wal arda wa ma baynahuma laibin yàlla neen asamaan ak suuf bindu ma ko pour foofu bu leen yaakaar ne foo moo tax ma bind leen yàlla subhanahu wa taala mbindeef yëpp si jóot nañ ba mu def mbindeef moomu ñu wax muy iblis moom bañ na bokk ci sujjóot yàlla daan na koy woo ne ko yaa iblis maanaka àllaa takuna ma asajidin lu la jot ba bokkoo ci ñi dégg sama ndigal jëfe qaala mu ne moom iblis lam akun li asjuda li basarin xalaqtahu min salsaalin min xamain masnun man de gis nga iblis li tax mu alf xelam la utiliser xel ay texte la texte yi ñooy orienté sa xel léegi nag boo bàyyee texte yi ne da ngay dem ak xel da ngay alku ma jox leen misaal yonent yàlla Moussa ci tuuri Sina yàlla daf ko woo ne ko Moussa loo yor mu ne yat yàlla mu ne ko sànni leer yi mu sànni mu nekk jaan mu ne téyel jat bi téyel jaan bi lu mu utiliser foofu xel est ce que xel nangu ne nga téye jaan waaye iman la utiliser gis nga téyel mu ne kërëb yàlla téye delloo ko mu ne kaat yat waaye bu doon xel eh ah du ko téye war a suñu xel yi dafa am fu mu yem xel yi dafa am fu mu yem nañ ko fay yemloo waaye da ngay gis diine ji nit jël xelam di ko waaw c'est que mais il paraît yooyu amul place ci islam yooyu amul place ci diine suñu xel yi texte yi ñoo koy gide Iblis dafa utiliser xelam nee na man du ma si jootal mbindeef moo xam ne ñu ngi ko bind ci ban bu ñuul buy xeeñ buy keleng lengi man du ma ko si jootal lu tax yàlla ne ko war a woon xool loolu waaye man mi la jox min ndigal man nga waroon xool qaala faxruj minha yàlla ne ko génnal bis ni ki tey dàq naa la biir aljanna waaye mbokk yi fii am na benn laaj bu ma faral di laaj mbokk yi jamono ju nekk iblis ñaata bàkkaar la def ba yàlla dàq ko aljanna ah benn sujud benn benn bàkkaar la def de Adama ñaata bàkkaar la def ba yàlla génne ko aljanna benn Hawa ñaata bàkkaar la def ba yàlla génne ko aljanna benn ñun ñu toog fi ku nekk ñaata nga am ah ku ñuy dóoree borom benn bu fa borom juróom téye ku mu jëm ah
من الجنة أخرجت البرايا من بفرض خطيئة وبفرض ذنب من الجنة أخرجت البرايا فكيف وأنت تطمع في دخول إليها بالأنوث من الخطايا
بارك الله بارك الله ma fi benn bakkaar lañ génne aadama ak awa biir aljanna yow nag yaa ngi yor man ak yow ñu ngi yor junni te ñee benn te la tax sax ñee raw ñu ñoom seen benn bakkaar yooyu da leen tere ne la aadama borom xam-xam yi nee nañ salaat makasa fil ard salaata mi asana lam yarfa ra'sahu ila sama li hayaa subhanahu wa taala aadama bi ko yàlla dàqee ndeysaan wàcce ko ñetti téeméeri ak aadama toog na ci suuf yëkkat bopp bi yëkkateekul jëm kaw asmaan day sëgg rek ndax benn bàkkaar boobu ndax rus yàlla ñun ñu yor ay milliards ba pare di ngand ngandlu day gis ku mooy yàlla génn di bonde di tëb di naan jaar jëppaay waaw muy tëb di bonde yaay naan ko yaay ngand mu tàllal loxo gaa yi dóor nga gis jigéen ju xeesal ko ku cëy mees naan topp leen di yëngal ñii ñoom benn lañam di jooy aadama ñetti téeméeri at la toog di tuub ci borom bi subhanahu wa taala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al baat yooyu rek la doon wax yàlla ne fa talaqa aadamu min rabbihi kalima fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim ñun ndeysaan ñu dul tuub ñun jadda zamanu wa anta talab kam taqulu gadan gadan atub gadan gadan wal mawtu aqrab mbokk yi mbokk yi am na lu ñuy xaar de leen nañ leen dellu mbindeef moomu yàlla génne na ko dàq na ko biir aljanna yàlla nee na wa inna alayka la ana ila yawmi diin rëbb naa la soril naa la yërmande waaye xoolal mu ne yàlla dama lay ñaan benn diir rek benn délai nga may ma ko yàlla xam na fu mu jëm te yàlla boo ko bind ya'lamu xaa'inatal a'yun wa ma tukfi sudur yàlla ne ko loo bëgg mu ne ma bañ a dee ba yawmal qiyaam yàlla ne ko may naa la ko fa innaka min al munzarin ila yawmil waqtil ma'lum rek xam nga lu mu wax ci loolu yàlla may ko qaala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala uwiyannahum ajma'in yàlla ci loolu dere boobu nga may may may mu jeedee ah dinaa leen taaralal suuf ba mu rafet kër yu rafet rek laa leen di xalaat lool parce que yu ligg jongoma yu ne gàññ xes tëb alal ju bari lekk bu neex lal yu nooy ndox yu sedd lool rek laay def liggéey ñun ñëpp dinaa leen berlool beneen aaya bi nu mu wax fa bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim fala tajid aksarahum sakirin yàlla ci délai bii nga ma may berloo ma nga xam ne maay mujjee dee ci li nga bind dinaa leen dek dikkee dinaa toog yoon bi nga bëgg ñu jaar siraatal mustaqim yoon bu jub bi nga xam ne yonent bi mu ngi misaal siraatal mustaqim mu ne mahajatun baydaa la layluhaa ka nahaarihaa mu ne laa yazigu anha illa haalik mu ngi mel ne benn autoroute rek bu ñu def ay projecteur guddi gu mel ne bëccëg ndax lëndëm na yonent nee na mooy siraatal mustaqim iblis na ko damay ñëw ba ci digg bi to ku waaye dox ba sonn rek moo wëlbati sama kaas ubbi sama gudd ne la toogal nga toog man la dox bi dafa sori toogal noppalu boo toogee ma may la nga naan ba pare boo jógee au lieu ma ne la jubalal ma ne suñu borom ne dinaa toog ci diggu yoon bi dinaa leen ñëwee ndey joor naa ñëw seen kanam ñëw seen ginnaaw ñëw ndey joor ñëw càmmoñ ñu ëpp ci mbindeef yi ci jullit yi dinaa fexe ba yow yàlla doo fekk ñu lay sant loolu la iblis mi yàlla tëyu yërmande wax ak sunu borom subhanahu wa taala yàlla ne ko wax ji li muy bari bari génnal ngay ku ñu ŋàññ ngay ku ñu sori yërmande waaye ngay ku ñu ayibal yàlla nag giñ ne ko giñ naa ci sama màggaay yow iblis sama jaam ñi ku la ci topp rek yaar moom ñëpp dinaa leen dugal safara waaye yàlla bàyyi iblis gës aadama mi tax li lépp am yaa ne ko aadama dëkkal aljanna yàq soxna yaakaar yimbe leen biir aljanna def leen lekk leen lu leen neex waaye am na fa benn garab bu leen ko laal lii lépp mu ngi am ci jour vendredi bu bi yàlla ne ko garab googu bu ngeen ko jegee rek yéen ñaar da ngeen ma tooñ waaye seytaane mu daan leen di jax-jaxal ngi mu génne seeni awra mu ñëw ba ci ñoom ñaar mu ne leen su ngeen gisee yàlla tere leen garab gi pour ngeen laal ko dafa bañ ngeen nekk ñaari malaaka wala sax xam na bu ngeen ko lekkee da ngeen di nekk ay immortel dootu leen dee maa nahaakuma rabbukuma an haadihi sajara illa an takuna malakayn dara terewul yàlla ne leen garab bi bu leen ko lekk lu dul dafa xam ne bu ngeen ko lekkee da ngeen di soppeeku au lieu ngeen nekk da ngeen di nekk malaaka yemul ci loolu mu ne aw takuna min al xaalidin da ngeen di nekk ay immortel dootu leen dee ah loolu neex na de mu jax-jaxal leen waaye yemu ci su yemoon fii sax gars yi duñu laal waaye wa qaasamahuma mu ne billahi dëgg la yenn saa yi nga am xaritu criminel bu la nar a dugal ci giraawaay da lay waatal day wax wax da lay wax ba tey wax ba sonn doogam mu waat iblis noonu la leen def daf leen waatal ñoom yaakaaroon nañu kenn du giñ ci yàlla di fekk wa qaasamahuma ba pare yemu ci mu ne leen inni lakuma min annaasi man dama leen di laaj biir rek eh yéen yéen a xam yàlla ne fa dallahuma bi gururin ndeysaan tegtal na leen caaxaan war na leen fa lamma zaaqa sajara ba ñu mosee garab ji rek seen awra daal di wuññee soo demee ci bible ancien testament wala nouveau testament ñaar yëpp wala nga jël lumb bi muy bible bi da ngay fekk mbooleem yonent ñu sosol la ci hatta yàlla ci aaya bii ñoom nuñ ko waxee ñu ne aadama ak awa ba ñu lekkee garab bi dañoo nëbbatu biir aljana yàlla ñëw naa leen aadama awa ay na antuma fu ngeen nekk yàlla di leen wër biir aljana waaw loolu day wan ne matul waaye xool alquran nee na ñoom ñaar ba ñu ñemee garab ga rek yàlla daf leen a woo ne leen ndax terewuma leen woon garab waaye dangay boo demee ci téere boobu mboolem yonent yi rek am na lu ñu la waxal mboolem yonent yi pour lan parce que bëgg dafa am lu ñu bëgg a def loolu pour mu am il faut ñu tuumaal yonent yi yàlla subhanahu wa taala daan nay génne ad aadama tamit aljanna ndax tere woon na ko garab aadama lekk na ci kon waaye yàlla daf ko ne dinaa la wàcce ci kaw suuf imma yaatiyanna min minkum minni hudan fa man tabia hudaaya falaa yadillu wala yasqa fa man tabia hudaaya falaa xawfun alayhim wala hum yahzanuun sama njub dana ñëw aadama yaag say doom ak sa soxna su ngeen ko toppee du ngeen texee di du ngeen torox waaye sama njub dana ñëw su ngeen ko toppee du ngeen tiit du ngeen jàpp kon lii mooy mission wu dikk doomu aadama ci kaw suuf waaye mboolem tukki bu doomu aadama tukki dafa laaj mu am dalil doomu aadama tey buy tukki fu mu xamul dafa baax ci moom mu pare lépp ak këyitam mu yor xaalis waaye sax dafa baax mu am ku mu àndal waaye sax dafa baax dëkk ba mu jëm ñu jéem ko baax booleeg ay nit wala sax am ku taxaw aéroport di ko xaar alquran nag moo ñëw di ñu nettali di ñu wax doomu aadama tukki bii mu tukki si ci kaw suuf naka la fi dikkee fii mu ñëw nun fii nekkee su fi jógee fan la jëm fa mu jëm lan la fay fekk naam alquran huwa huwa alladi yuarrifuna xaqiqata al insan wa dawrihi fi l ard alquran moo ñëw di ñu wax dëgg-dëgg doomu aadama mooy kan kon ñun dañoo wuute ak ñi nga xam ne dañu ne doomu aadama ci goro la bàyyeekoo ñu ne ñooñu dañoo bàyyi dañoo wuute ñaareel bi mooy dañoo wuute ak ñi nga xam ne dañoo ne in hiya illa xayaatuna dunya namuutu wa naxya wa maa yuhlikuna illa dër dañuy dund rek après dee jeex na dara du xew ñun dañoo wuute ak ñooñu ñun dañoo gëm ne cosaanu doog a doomu aadama ci suuf la bàyyi ko aadama mooy maamam mooy baayam dañoo gëm ne doomu aadama am lu tax yàlla bind ko indi ko ci kaw suuf fii muy dund nag moom doomu aadama dafa dafa laaj su fekkee dafa bëgg dundam jub dafa am ay laaj yu muy posé boppam su fekkee ne bëgg na laaj yi daal di baax bëgg na jub il faut mu laaj ay boppam ndax dafa am ay philosophe yu fi jaar ñenn ñi sax duñu leen tuddee ay philosophe waaye ay philodoxe ku mel ne Iliya Abul Maari doon na wax man daal ñëw naa xaw ma fu ma jëm fu ma jógee damaa jékki-jékki rek dikk ba samay tànk mënee dox jaar naa ci yoon yi dox est-ce que mbir mi loolu la. loolu wala fi nee nañ la yëngu la ko yëngala ko ëpp doole doomu aadama ak dikkam kaw suuf dafa am sabab dafa am lu ci yàlla namm doomu aadama su fekkee dafa bëgg a jub dundam leer saa yu xëyee suba war na laaj boppam laaj yi di ñëw war na wax man ana min ayna jitu ila ayna azhab baada al mawt li ayi shay'in aish ala ayi nahjin aish man ana mooy maay kan saa yoo xëyee wala ngay génn sa kër war nga toog salal jublu penk ne waaw man maay kan waaye bul ko def nag na ko buur ba defee woon toog ci digg gàngoor bi yëf yi neex garde yi wër ko place bi nëtëx musique bi di jolli mu am lépp lu ko neex mu ne maay kan fëgg dënam benn nit yàlla ci biir mbooloo mi jóg taxaw ne ko man de xam naa ma yaay kan mu ne gaa yi noppi leen may leen kii mu wax leen man maay kan waa ji ne ko anta allazi mararta bi mar bi marlil bawli maratayni kayfa tatakabbar xam nga xaaru woon lool yow yaay ki nga xam ne bi ngay génn ci sa baay di dem ci sa yaay fu ñuy tuure ndox nga jaar bi ngay jógee sa yaay di gane àdduna fu ñuy tuure ndox nga jaar ndax war ngaa rëy ndeysaan gis nga moom fu mu lu mu xaaroon ñu wax ko ak lañ ko wax du benn wala doomu aadama war te rëy mbokk yi war nga laaj sa bopp man ana xoolal bi nga ganee àdduna rek loxo yi la njëkk a teeru dañoo sol ay gants sooy génne àdduna loxo yi lay mujjee sol dañuy sol gants sàmmkatu néew yi dañuy sol gants de bu ñu amul gants perméable la ñuy jëndi takk te interdit ngay sang nit te amoo loo protéger sa loxo du sunna il faut nga def sa loxo diggante bi ak yaramu waa ji am lu ci nekk. bu waa ji di juddu sage-femme yi ak médecin yi seen loxo yi dañ ciy def gant wala loolu est-ce que kon doomu aadama bi war na rëy waru rëy de wala war nañu xool suñu bopp doomu aadama gis ko nii rek ndeysaan mu wér yàlla defal ko sutura muy dox di ñëwaat gis ko noonu rek bu ko fekk mu ci lalu feebar mu tële mënatul dara mënatul taxaw ndeysaan nga gis ñu samp ko raakol yi hatta raakol bu muy demee àll ba wala bu muy tebee tuur ndox dañ ko koy dañ ko koy samp ci kaw lal bi ndeysaan nga ñëw seeti ko fekkal doomu aadama ci sukuraatul mawt wala nga fekk mu nekk néew nga génn ci moom gis ko nii rek ñun ñëpp nag nii lañ mel yàlla ñu sàng sutura rek benn mbalaanu sutura may ñu tuuti ci aafiya soo romb nii rek ñëpp gis ndeysaan ah yaa ngi jantal rafet sam waaye di bonde di tëb waaye ndeysaan bu yàlla yëngaloon sa bëñ li gën a ndaw ci sa yaram bu ci yàlla yëngaloon benn cër rek nga tëdd reer doo jóg ku la seeti rek daal lay jéggi génn ci yow ku la bëggoon rek bañ la bu fekkoon ne dañuy jël jigéen ñi di leen yóbbu ci lali hôpital yi naan leen kaay leen ku ngeen bëgg fii ñu may leen ci ñu feebar ñu góor ñi wala ñu jël góor ñi di leen yóbbu ci hôpital ñuy gis jigéen ñi feebar ñu ne kaay leen ñu may leen kenn du am jabar kenn du am jëkkër wala voilà lu tax léegi lii sutura yàlla bu la yàlla muur la aafiya bu mu la may tawfiq ni'matun min allah waaye tawfiq boobu fu ñu ko dugal sëriñ bi dafa toog ci biir taalibe ba jaag mu ne mbaa amul fi ku yàq dugub benn baykat ne dugub nit ñeme na ko yàq ak coono gi mu ci nekk mu ne ko waxewuma ko foofu mu ne foo ko waxee mu ne reer ba suur dem baali ko mbaa nga njaalo ji ko loolu mooy yàq dugub loolu yàq dugub lekk ba sa biir fekk au lieu nga dem reesal ko ci jaamu yàlla nga dem moye ko yàlla yàq nga dugub yàq nga dugub kon laaj bu njëkk bi mooy man maay kan war nga ko laaj sa bopp maay kan man ana ñaareel bi min ayna jiitu moo man fan laa jóge ba ñëw fii yàlla wax na ci Qur'an hal ata ala al insani hiinum min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura ay waay doomu aadama ndax yaa ngi fàttaliku am na benn jamono bu ndaw nekkoo fi woon mbokk yi ñun ñu toog fii mille neuf cent cinquante dafa lañ nekkoon am na ci ñun ñoo xam ne fekkee ñu ko ah mille neuf cent vingt ñun ñu toog fii fan lañ nekkoon am na ñoo xam ne quatre vingt yi sax fekku leen fi fan lañ nekkoon loolu doomu aadama war na toog di ko xalaat man fan laa nekkoon balaa may ñëw yàlla day wax ci Quran doomu aadama na xool ci lan laa ko bind fal yanzurul insaanu mimma xuliq yow doomu aadama su ma la santee nga bañ xoolal ci lan laa la bind moom yàlla mooy tontuwaat de mu ne xuliqa min maa'in daafiq yaxruju min bayni sirri wa taraa'ib maa ngi la bind ci ndox moo xam ne mi ngi génn ci ndigal góor ak déndi baati jigéen suy génn day génn ak doole dox mi doya dina doya di boo xam ne ku mu takk sa yére boo xëyee suba fóot ko ku mu takk sa yaram boo xëyee suba sang ndox moomu la yàlla jël mu ne fa ja'alnaahu fi qaraarin makiin ma dugal ko ci benn place bu am sécurité ndox la woon alma mu def ko alaq mu def ko benn lumb lumb boobu yàlla jël alxalaaya loolu ñu naan selil mu def ko ci selil yi mooy tax boo xoolee gis suñu waxee nga dégg soo laayee dara mu ri tax wala mu ñagat soo lekkee dara nga xam dafa forox mbaa dafa leet mbaa dafa neex te lu gën a yéeme mooy doomu aadama mani yu bi ko yàlla bindee suñ sëy ba génne ko ay milliards lay génne milliards yooyu di dugg ci ronu mu jigéen benn mooy dugg mbaa ñaar mbaa ñett su benn bi di dugg mu képp day dagg su daggee day nekk ay seex su fekkee ñaar ñoo duggandoo ñaari seex ñooy prépare dañuy nuroo su fekkee ñaar ñoo duggandoo mën na nekk ay seex mais duñ nuroo su nekkee benn moo dugg mu dagg day nekk ay seex lu ëpp dañuy nuroo su fekkee ñaar ñoo duggandoo nuroo tepp dagguñ day nekk ay seex mais duñ nuroo te suñuy dugg ndey joor la ñuy jaar bu ñuy wër nen bi ndey joor la ñuy jaar soo jëloon bant yëngal ko daal di koy jaxase tourné waat ko sànni soo bàyyee rek mu daal di delluwaat dem yamiin xoolal dund jullit yaay ay sa nee ne kaana yujibuhu atayaamunu fi kulli shay yonent alayhi salaatu salaam lépp lu muy def ndeyjoor la ko daan def ndeyjoor da koo neexoon sax muy lekk buy sol yëre buy sol dàll buy peñew xataa buy socc côté ndeyjoor lay njëkk a boom ndox moomu moom la yàlla jël def ko mu nekk dret ay ñeent fukki guddi la ko yàlla di sot par étape ndox la woon mu def ko deret deret bi mu def ci ay tëli mu nekk ay yax yàlla jël yàpp sàng ci yax yi fa kasafna al izama lahman summa ansha'nahu xalqan axar fa tabaraka allahu ahsan al xaaliqin allahu akbar wala doomu aadama buy ci biir yaram day am jeen ni day am jeen waaye ëmb bi day rëy jeen ji dagg ëmb bi rëy jeen ji dagg ëmb bi rëy jeen ji dagg ba judd di jot day judd di indi di indi jeen doomu aadama liir ci biir yaayam ndeysaan nga gis nii lay def borom xam-xam yi ñu ne trois mois yu njëkk yi day kàbbar su amee six mois mu rukkoo neuf mois day sujjóot pour génn bépp liir buy judd bopp génnul musiba am na laaj leen saa yi bu tànk génnee du baax bu loxo njëkkee génne du baax bopp rek kon nga sujjóot jëbi kon nga jox ko yàlla tey waaye bu juddu jotee jigéen ji nga xam ne xoolal doomu aadama ci biiru yaayam bu ñu jëloon bërigo tey fii bërigo bu amul dara ñu def ci ndox ba mu fees dugal ci nit tut ko trente minutes nu muy def ah léegi bu ko am dee dafa étouffé amul fu mu noyyee doomu aadama ci biiru yaayam mu nekk ci biir mbuusum ndox ndox deewu ah te suñ ko jëlee dugal ko ci ndox fukk mu dee fee mu nekk ci biir mbuusu ndox deew fii zulumaati salaasa ci ñetti lëndëm lëndëmu butit lëndëmu mbaax lëndëmu biir ci biir ndox deew muy lekk te jëndul benn restaurant di naan meew te demul benn mayga kan na ko doon aar foofu est-ce que jigéenu biir mos na leen a romb ngeen dégg lii bi naan yaay doxal ndànk ah wala ngeen dégg liir bi di jooy ci biir bi doom yaay ji naan ko noppil abadan nit soo toggee kilo ceeb ba mu jeex nit mun ko lekk ba mu jeex liir ñaata lay peese ci biir yaay moom bu nekkee ci biir ñaata lay peese ñaata kilo deux trois su gënee ngand fekkee yaay ji day naan glace mu jëm quatre est-ce que nit mën na lekk quatre kilo ceeb wala muy dox ak quatre kilo di lekk di naan di dox ak moom di dox ak trois kilos boole ci di lekk di naan kenn yëgul lu ko yàlla yàlla nee na bu ngeen ma yebee fii laa jaaroon ak yéen démb balaa ngeen a ñëw fii laa leen ku ma yeb tey rek fii laa jaar ak yow bi juddu jotee yaay ji di onk ci biir kër gi di yuuxu ndax papa ji dafa ñëw rek daan ne liir idéal ko génnal papa daa tële daa di uti taxi kër ga yëpp dañoo tële ñu yóbbu hôpital ndax bu mu yeb tey docteur yi dañu ne liir génnal dañ naan ko toogal fee ah matago jotagul ndaw si yuuxu yenn saa ñu ne ko bu fekkee saat paam yi nga xam ne nday saan tey ni réew mi mel allahu akbar da ngay dem place yi yërmande yi nga fekk fa nit ñi am na maternité yoo xam ne da ngay ñëw paam nit nit di yuuxu nga dañ ne xoolal bu ñu lakkal ñu dañ seetaan film nga teg dimbali ñu nga dem ci yenn hôpitaux yi ku accident deret ji tuur ñu naan ku mu àndal lu mu yor teg leen ko ne ba ñu gis mbokkam deret ji tuur